legi legi legi magi zechi wa men bundu chi ma ni ma ya man jom na nyu lak ma mai tan ka mu ga sum ma gale du ma na cha ni gay ni gay ni gay asalaamaaleykum mbokk internet bu Senediaspora TV très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu ànd bi saa su ne ak suñuy programme di leen wax nag dal leen ak jàmm ci seen premier numéro bu émission waar wi waar wi comme son nom l'indique képp kuy dóor waar moo xam da nga nekk ci secteur informel di yëngu ci wàllum jaay ci wàllum tailleur plomberie menuisier mécanicien fépp foo mën a ne ci Sénégal ñun Senediaspora dañuy déplacé wu ñëw seet si la ànd ak yow journée bi nga expliquer ñu sa métier nokoy dundé akan ak nan nga ci duggé yépp tay nak premier numéro ñu ñëw Kafrin ci Kaffrine seet ci ben ndaw bu tudd Alassane Alassane nak mom nak tailleur la euh, di yëngu ci walum couture depuis pas mal d'années donc duma def lu and ak sama caméraman ñu dugg biir Kaffrine dem seti Alassane andak ak mom journée bi let's go Modou Sénégal diaspora ginnaaw euh, bi ñu jógee kër ñoon Alassane ñu ngi ànd ak moom ñëw fii tey ci bërëbu liggéey liggéeyukaayam mooy marché bii nii Alassane euh, fii mooy marché ban. waaw ah, fii mooy marché Kaffrine. marché Kaffrine waaw mi ngi nekk ci quartier Escale. ci Kaffrine quoi waaw. gis nañ ne marché bi euh, am nga fi maanaam kii nga déggoo nga ak gars yi quoi waaw gars yi xam nañ la bu baax waaw. gars yi moom wax dëgg yàlla miinante nañ. te aussi ay dëkkandoo yu ñu seq ak jàmm lañ. amul dara fii mooy ri 44 ñu ñoo fi nekk. combien combien d'années yow yaa ngi ci métier tailleur bi. 1993 laa tàmbali jàng ñoom. te bi nga koy tàmbalee say waajur nan nan nan lañ nan lañ nan lañ ko gisee woon par rapport a sa man man dama opté wutoon nekk tailleur man dama bëggoon a jàngale alxuraan école laa bëggoon a jàngale soit daara soit leneen mais bëgguma woon nekk tailleur bi ma demee 91 ñu bàyyi jàng ma ñëw fii. paa bi ne ma da ngay jàngi téer ma ne ko man damay continuer jàng léegi nag dinaa boobu ñuy xëccoo di xëccoo ba mu yàgg ma ne ko léegi baal ma def mécanicien mu ne ma non non téer ngay def après nag bi ñu demee ba 91 jàngu ma dara ndax 91 rek laa bàyyi jàng nawet noor 92 92 élection Abdoulaye Wade Abdou Diouf fi ma toog defuma dara mais 93 nag ci tabaski passé langsung sok tambali jang ñew ne xam nga pa bi li la décider nak baax rek ma dugg ci mais man mom pour man dama doon jàngale alcorane diiné ci la bëggoon ñu yëngu mais nak li la dogal mënuma ci dara ko ko biar baax ci ay kilifaam bëgg ay ma waaw seetaan ma benn yoon bëgg na ay yaayam bëgg na magam bëgg na ay rakkam bëgg ay soxnaam incha allah dañ ko ñaanal yàlla lafal ko cat rek lu baax rek lañ xam si moom ku laa biir la ku baax am yërmande. macha allah jàng métier fonk ko ba nga xam ne ki ko doon jàngal métier moom demoon na ba teg ko fa xam ne tegu fa sax ay doomam tégu fa ay rakkam ndax moom ak i jarbaatam ñoo fa bokkoon nekk. wante machine bi gënoon a baax ci machine am sax alsan la ko jox même ba muy dem rew ma sax daf machine bi tek naa ko ci loxol alsaan bu ko kenn jël ndax mom rek mo ci mëna ñam machine yi ni dawalé 217 moo ko yoroon. parce que bu ñu luñ soxla ci walu tisi fi lañu ñëw bépp tisi goor bépp tisi jigen lo gis lu ne rek ñu génné ko fi lañ koy jëlé señ bi ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum ça va na ngeen def. tey ñu ñëwoon fii ci diwaanu kafrin euh, seet si ki nga xam ne moom mooy Alassane ci émission bi nga xam ne mooy euh, waar wi euh, yow lan nga ci Alassane ak ban témoignage nga ñu mën a indil ci Alassane. waa salaamaaleykum na ngeen def ñu si jàmm man Issa dem nañ may wax commerçant marché nag daanaka ñu ci kanamam la ñu màggee moo ñu yar daanaka moo ñu tette ku baax la ku ñàkk caaxaan la te aussi ku am njëriñ la te aussi nag dañuy digal lu baax. ba mu nekkee fi ba léegi daal daanaka si yoon bu baax daal la ñuy digal koy sant daal di ko gërëm bu baax a baax. yow daal ñaw yu rafet yi muy ñëw daal tissu bu mu ko ñawee rek yow yaa ko jaay. waaw tissu moom bu mu am maa ko ko jaay daanaka bu amee client yi xam ne àll ba lay jógee àll koo xam ne ne réew ma lay jógee bu ñëwee aussi damay boole moom ma defal bu baax bu dee piis su góor am na place bee pour góor ñi la place bi teraanga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe te lu mu néew néew moo ma gën a leneen lu ma mën ci am jamono liggéey jamono liggéey la liggéey war na góor wanna be waaw alsaan moom wax dëgg yàlla ah, ku baax la ku nangoo liggéey la aussi ku ñemi njaboot la waaw xale bu jub la de ñun ñaar fi de kenn jëppoo ko ci danga ko ñaan yàlla nag fu mu bëgg àgg yàlla ko fa yàlla ci daraja sallallahu yow ñu la fekk euh, ngay euh, depuis ñaata at yaa ci métier bii ni ah juróom fukki amna ko ci waaw ñu am naa waaw. am naa ñeent fukki ak juróom yoo xam ne maa ngi fii ci laay dépasse amelu ma kenn bor waaw mosuma ñàkk sama dépasse itam waaw te gune bu tolloo day liggéey métier doole bu amatu doole day toog métier nag moom boo amatu doole da nga maa naxante ci métier ba dem ba léegi ndax fi ne maa ngi cee naxante ba léegi di fa sama aajo waaw loolu rek la ci xam waaw. macha allah mbokk internet yi gis ngeen ka euh, suñu papa ji tey bu ko neexoon mu tëgg kër ga lal basangam tëdd mais dafa ñëw di daan dooleem loo xam ne exemple la ci ñi nga xam ne mooy ndawi réew mi ñu jël ci kii nga xam ne mat na leen maam te terewul mu ngi ñëw fii di daan dooleem di ñax di jariñu waaw Alassane moom boo ma laajee ci moom dama ciy sawar di wax ndax dafa nekk koo xamante ni dafa am koo xamante nii mag la ci man lépp la ci man moo ma boole woon muy Aïda Ndaw fam mu yalla nako na ko yàlla jéggal jéggal ku fa fekk ak kuko fa fekk moma ma ci loxo indi ma ba ci alsaan mu ne ko kii day ma ñawalal sama rak la sama séeri la day ko ñawal depuis ba waxe waxee ba léegi loolu nak alsaan nek na ko xamanteni nii ni ma ko mën a bu doon ba ma koy xam numéro 1 la ba léegi amut changement defut 2 ñoo bok nek ci mart bi bok ci luñu ñu yëngu bokk ci yalla boole tamit ñu bok tarixa bu ñu yàlla boole muy tarixa Cheikh mu nek ci ku ci dëgg wax dëgg fa yalla waaw def ngeen lu rafet parce que lii moom suñu mbégte la leen ci kontaan bu baax ci ki ngeen jaar moom ku baax la alsaan ku baax la ku yaatu la ku yaru la ku tey la parce que ñoo bokk association fii nii man maa ngi ji tudd Moussa Ndouré eh, nekk fii nii tailleur encore jiite association bu ñuy wax FENAF fédération nationale de professionnels de l'habillement du Sénégal moom maa ko jiite fii nii léegi nag euh, moom tam Alsaan moomu ci sama membre yi la bokk en même temps moom moo nekk ci bureau bi euh, relation extérieure waaw moom mooy relation extérieure kon nag yéen bu ngeen jógee ko foofu si diaspora bi ñëw fii di ko seet si ko loolu dafay nekk loo xamante ni suñu fierté la kon daanaka ci liggéeyam moom ci ngeen ko fekk si waaw di kontaan bu baax nag ci loolu di kontaan bu baax ci yéen itam. bañ jàng ñëw fii lañ ko fekk bañ beroo fii lañ parce que mo ñu jangal ñom mo ñu yar mo ñu tété ba ñu toll ñu ba ñu toll ñu toll ni état bi amu suñu diggante tak mo amu ben xarma yalla wax dëgg yalla gaan bu baax la quoi ñun fi ñëpp mooy suñ mooy suñ jaarige dal mën nañu wax ne mooy suñ jaarige nit ku baax la mo ak sama gaay mo petit pois am sama gaan bi petit pois leen koy wax waaw ñom gars gaay baax leen dal dëgg yalla ne tay dañu am mbikté trop ci li ngeen ñëw fi ci Kaffrine séti suñu grand frère muy alsan ndaw vraiment grand yu mom man man mom moom ñoo bokk ndey ak baay mais man jappé wu mako mag man bay la ko jappé parce que limay may man japp na ni sax sama papa sax jëriñul mako manam fi bay waron fété dom man fofu la ma fété motax dal dama koy sante diko ko di ko ñaanal mu gudd fan am jamm am nga am na yo xamné lepp li ñuy wax rek nit ki lim bax la yépp ku ko ko waxal sax ya ko catu motax tax daanaka dañ koy bay ak yalla rek ñaanal ko yalla mu defar ay mbiram aduna ak alakhirah parce que Alassane ndaw dafa nek suñu ndor te dañoo ci marché bi man na wone sax dan bi ma ñëwee fii ba léegi moo ma dalal fii moom moo tax gannaaw yàlla moom moo tax may dem nii ci métier ba léegi waaw parce que vraiment gaañ bu baax la gaañ bu am respect ci doomu aadama la te dafa yëg doomu aadama waaw mbokk internet bu Sene Diaspora comme ni ngeen ko gisandoo tey journée bi ñëwoon nañ fii ci Kaffrine seet si ki nga xam ne moom Alassane di tailleur ci marché bu Kaffrine yaakaar naa ni gis ngeen témoignage yi euh, yëpp ndiro han ah, ñëpp nee nañ nit ku baax la ku dal la ku tey ku respecté liggéeyam la euh, demoon nañ këram tamit euh, jël ay témoignage am waajuram bu jigéen wax na ay soxnaam tamit wax ñu wax nañ Alassane yaakaar naa ni tey ji journée bu spéciale la ñu ñëwoon fii seet si yow seet si la euh, gis nañ euh, témoignage yi nga xam ne nit ñi apporté nañ ko te loolu yaakaar naa ni yow yaa leen ko wan moo tax ñu mën ko témoigner. Mhm. gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu kontaan baax ci seen ñëw fi tey parce que lii am na solo lool parce nit nga fekk nga toog dem ci benn kër dëkk ña fa yëngatu nga xool nit ñi yëngatu ak lañu lan la ñuy dundee. dana tax ñu xam lan mooy actualité réew mi li ngeen def ñu lu am solo la dañ leen ci remercier nit ñi nag seen témoignage yi ñuy wax ci ñoom ci ñoom la ne ndax ñun lepp lu ñu def xam nga nit mënul baax te nekkut ak nit nit mënul am dara te nekkut ak ay nit ndax ci nit ngay essencé wo pour nga am ñu xam ban qualité nga ci ngay xamé bu bon la wala bu baax la kon nit ñi ñoo baax ñun ñi nekk ci ruq bi fi moy ri 44 ñepp ben lañ ñom ñi fi ñepp nekk ñepp man lañ dem may seen jaar wax deug yalla mo aussi fi ma fi njëkk sampu place après ci di ñëw ndank ñi di ñëw ndank bam dem bam nekk nak ben mouvement fi ne ni man suma togon fa lay soxla dara ñom ñu dem liggéey te jàngalu ma leen métier parce que luñ seq mooy jàmm ji rek moo ko jaay jaaykat commerçant yi nekk fii sax même am na ku ngeen jël ñu ko wax Sele Mbaye moo nga jëkk ba jamakaajo mais kooku noonu commerçant la waaye mi ngi nii toog su ma ko soxlaa ne ko demal defi nangam mu dem defi ko parce que ne na ñoom ñëpp dañoo joxante cër animé foo ree amul benn jafe-jafe bu ñuy am ak ñoom ñun ñëpp benn lañ ñun suñu njaboot lañ ñoom seen seen njaatige lañ ñun ñëpp benn lañ jullit day am lu muy jàpp booy xëy di liggéey boo amut it dana la musal ci lu bëri mais boo amul liggéey nag moom ci li ngay mujjee grand doo jàppale tey wala sama doom aw ma juróomi téeméer yu ma ndekkee wala ni wala naa ci yooyu ngay mujj mais tant que nit mi ngi am métier di xëy di wàcc rek am na lu ko aar ba du dugg ci yenn débat yi paa yu bëri ngay fekk ñu nekk mag di taxawaalu wala ñu leen di jéppi dañoo amul woon métier mais soo amee métier dañ cee nek ndax man sama papa tailleur la té ba légui day xey di ñaw su am amul woon ci day wuti garan place mais ba légui damay xey marché mom mu xey ci marché su wacce dama koy fekk kër gu mu wacc da ngeen ko fi fekkul tay dafa tukki dem ben xew kaolax lool mo tay fekkul len ko mais lool mo nekkoon kàddu yi su ko defé yeen ngeen di len sante dal di len jaajeufal aussi di jaajeufal wa dekk kafri marché bi yépp ndax liñ def yépp ay jëflanté la rek yu ñuy seq di ñaan yalla yalla na and bi yàgg yàlla nañu yàlla musal cat ak saytaan jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam man bi may dugg métier sama place njaar gi ñaari machine a fa nekkoon moom bi muy toog ak bi deuxième bi du toog man am na am na un an et demi boo xam ne nii xam nga lu muy xëyee boyel fer yu ñëw toog ñoom léegi sax am nañ sens feeru courant ngay yor mais man dama doon boyel rooti ñëw toog un an def naa ko et demi yoo xam ne du ma toog ci machine suñ demee ba dugg 200 bi la tàmbali suñ daggee bàyyee ma ñoor yi ma laxas ko fenn suñ a wàcc ma toog ci benn machine ñaw ñoor yi takk denc loolu deux ans def naa foofu laa yem ci ñaw ñoor deux ans léegi booy bu ma yor fii man balaa noor bee jeex ma dubluur loolu la sér kon gën na gaaw kon war na ñoo man a muñ parce que ñoom dañuy jàng ci six six six ans cinq ans six ans sept man jàng naa ko dix ans 2013 de 93 ba 2003 loolu yaakaar naa fukki at la te yi ci bëri dama doon noor dinaa ci métier mi te ñoom léegi sax da ngay gis bu naawetee ñu bay bu nooree ñu ñëw kon nag muñ daal. bokk na ci li gën am solo ci njàng métier soo muñee rek dangay ngay muuñ loolu la wolof wax jërëjëf euh, mbokku internet yu Séné Diaspora tey lii lañ leen indiloon ah ci si si seen premier numéro bu émission waar gi yaakaar naa ni ñoo gisandoo témoignage yi euh, ñëwoon nañ ànd ak Alassane dem këram dugg si biir marché bi jël ay témoignage am ay client am ay ñi nga xam ne ñoom la séqal liggéey bi fii ci marché bu Kaffrine di leen wax nag yemuñu fii prochainement mën nañ dem Ziguinchor mën nañ dem Tamba mën nañ dem Matam seeti menuisier bi plombier bi euh, wala sax mécanicien bi parce que waar wi yéen ñëpp la nekkal Très prochainement, si c'est un bel numéro pour Warby, euh, restez connectés sur Sénégal Diaspora, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour un autre numéro de Warby. Nikkei, Nikkei, Nikkei. Hey, yo, be thankful.